salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum monde entier man la Momo doomu dëkk bi waa di def benn cri du cœur eh, jëmale ko ci waa commissariat bu ginnaaw raay sud ah, fi ma dëkk donc di def benn alerte nag ci le préfet de Pikine du ko wax ni nañu dimbali ñun waa ginnaaw raay ci commissariat bu ginnaaw raay ginnaaw raay li fi nekk ci ay kër ëpp na 3000 kër depuis commissariat bi ñëw ci ginnaaw ba ñëw ginnaaw raay ba léegi ginnaaw raay mënatuñoo def dara dara dara dara fekk nañ ma première fois ma def daayira suñu buddu kër ñu tas ko booy bi dem fay douze mille lendemain ñu fekkaat ñu suñu bundu kër ñu daayira ñu tasaat ko pour une deuxième fois booy bi dem fay six mille démb fekkaat nañu ñuy daayira ñëw tas ko loolu ba kañ ginnaaw raay yëpp benn jooy bi la ñu am benn jooy muy commissariat bi teguñu ñu waa ginnaaw raay ay nit te pour man ñun ñoo tax ñoom ñëw fi ginnaaw raay duñu ay waga fii ay noobul ñoo fi dëkk mais commissariat bi dafa jàpp ay xar la jiital dafa jàpp ñun waa ginnaaw raay ay xar lañ te loolu nag dafay jeex ci nii wala mu jeex ci naa ñun fi ñu dëkk la ñu am fi ñu dëkk la ñu am lépp loo xamante ni dañ koy xewle fi ñu dëkk rek lañ ko mën a xewlee am na ñoo xam ne mais woo téléphone nan ma wax nañoo maire bi ab laay Diop am na ñoo xamante ni dañuy préparer seen xew def ci lépp police bi su ñëwee tas ko lan mooy ndayi police ginaaraay raay saa bu ñëwee fekk waa ginnaaw di xew mu tas ko police ginnaaw raay ñoom ñooy ñan ba ñun fi ñu dëkk ñoom respecté wul ñu loolu nag dafay jeex en tout cas ñun waa ginnaaw yëpp pare nañu pour topp ginnaaw raay justice dinañ porter plainte comme contre commissariat bu ginnaaw pour que ñu xam ni ginnaaw ñoom ñoom moomuñu ko ñun ñoo moom Guinaw Rail ñun ñoo fi dëkk amuñu lépp Guinaw amuñu lu sut Guinaw Rail mais commissariat bu Guinaw Rail ni ñu nekkee ak waa Guinaw Rail teguñu ñu ay nit loolu moom dafay jeex loolu moom day jeex takk takk takk demuñu soirée waxuma bu kenn dem soirée def tànn beeruñu waxuma bu kenn tànn beer mais ñun ay bayfal lañ fii dafa am ay bayfal am ay ñeseen am ay tiijaan am ay laayen am ay xaadir mais képp ku fi def daayra rek commissariat Guinaw Rail ñëw tas ko lan moo tax ñu koy tas bërki dem mercredi bi passé boo génnee tunnel bi même pas 500 mètres même pas 500 mètres ak ak euh, commissariat bi cité daayar nañ fi ba minuit passé tasuñu ko te ñu ngi dégg cant mais Guinaw lu fi xew ñu tas ko lan mooy tax police Guinaw Rail respecté waa lan moo tax dèjà ñiy tas cant ñi fi ñëw di ko tas matuñu siis ñi ñu fekk démb rek ñi fekk démb bu ñu ni ñoom dañuy rayante ñi fi fekk démb buñ ëpp nañ cinquante personnes buñ bugguloon cant yi tas cant yi du tas mais nag ak respect bi ak teni bi xam nga duñu xuloo ñoom duñu xeex ñu bàyyi la ñu tas dañoo dem ba foog ne waa ginnaaw dañ leen ragal te ginnaaw waay amul ku niy tiit ci àdduna parce que fii ay noble ñoo fi nekk donc nag ñun waa ginnaaw dinañ manko dinañ dem préfecture pour que ñu am suñu jot suñu àq ak suñu yelleef suñu indépendance moom ñun waa dañ koy am te du commissariat général moom koy xañ dina leen topp nag dina leen topp ba fi mbaxane doonee benn pour que ñu respecté ñu parce que fii ay noble ñoo fi nekk encore une fois nanu respecté waa Guinaw loolu moom day jeex takk takk takk takk ñun ak commissariat Guinaw Rail dinañ def nii wala ñu def nii un point c'est tout dina leen topp dina leen topp justice dina porter plainte contre commissariat bu Guinaw Rail pour que ñu jox waa Guinaw Rail seen ak ak seen yeneen ndax ci leen bokk jaajëf